yi ñuy sant ak di gërëm ngir maande gu amul ab ci suñu tur ñun ñépp ñi fi nekk ak ñi fi nekkut jagleel ko ñi ñu jox ndimbal li xool leen suñ njiit yi koo ci gis mu ngi bég di layam layami suñ kanam di daagu mel ni ndimbal li seen ñaxi bopp la ñun nag ñun askan wi nga xam ne amuñu kaddu amuñu fayda ñuy fecc ak di woy ko ndimbal li coo ñoo fayda ma ne nañ leen ubbi suñ bët yi xool te xam ne ak njoboot munta sosu faites le taire bàyyi koog man ki tey lay mujj wax ci mbolo ci lenn luddul yel wan gu sax dak dak dak. teen gis ngeen ne xewu may gu melni diru fanweri at mu ngi am fi ak fenen ndimbal lii ñu ñuy sédalé mo ñuy rey rey na bép jom ak ngor gu nekkon ci suñ biir. ño ñak jom. kenn amatu fi jom